yee doomu yaraax mu nga ca butéel ya xool butéel yi Talla Ndiaye ak brique bi mu teg cey lamb di sotte ko rek waaye boo ko xoolee Talla Ndiaye di nga xam ne kii fayul entraînement Talla Ndiaye. waaw ñoom ñaar ñëpp Babacar liggéey nañu. non ñaari mbër yu ne ci état ki laa yërëm. ba pare ñaari mbër yëpp dañoo liggéey bu baax a baax. Sawru Fall ngoog ma naan Saba mu ngay wax ak ñoom. Babacar tey di nga gis lu neex a neex man maa la wax lii. Sawru Fall ngoogu. xam nga lu tax Babacar. Talla Ndiaye géew bi jax Talla Ndiaye trophée baa ngoogu Sidi Jaxate mooy magi promoteur yi tey fii Pape Abdou Fall tëgg combat mais trophée bi loo mën a rafet na Garga Mbossé féete gos Garga Mbossé miin na fii Mamar Diop daan na fi mbër ba tàyyi daan fi fëgale moom Garga Mbossé waaye Moussa Ndoye fii la daane Lac Rose Talla Ndiaye li ma la wax ñoom ñaar ñi ku ne bëri nga ak Lac Rose gañe ko laa ilaha illallah yàgg nañoo bokki muy Garga di Moussa Ndoye e lamba ngi Talla Ndiaye seeru lebu man gis naa fi ak bale gis naa fi ab layu gis perkal Moussa Ndoye daa teg leen tey victoire Lamine gëj nañ koo daan Moussa Ndoye wallaay gëj naa daanu ne ci waa ca la mujjee daan ne ci dynamique de victoire bu doy waar Malick Niang bu Yoff ko mujjee daan waaye Garga Mbossé boo xoolee dafa nekkoon ci lancé Boy Niang bu dégool dogale ko uh-huh. mu def année balance ren mu takkaat ngemb di bëree mu ngay dagg ca drapeau ba waaye day def ci ngembali taala taala day def ci ngembali waaye taala ñaay xanaa sa énergie bi yëpp dem jaay nga ko ci soirée Wally Seck bi Talla Ndiaye Talla moytu soirée yi. Babacar la nga fecc ci démb. énergie bi yëpp jox nga ko démb Faramareen. la nga fecc ci démb Babacar. waaye Wally Seck waaye maa bëggee Wally Seck ak groupe Ramdan. kenn du ñoom. macha allah machine bi rafet na trop. waaw waaw man day ndaama laa lii de dana baax ci man. Ah. Talla Ndiaye fu ñuy taxaw la ñuy xëccoo. léegi terrasse lañ di atte Talla Ndiaye. xanaa dañ koy pile. ah des koy pile tedd wala fiis. Matar ngi ci biir arbitre. Babacar loo ngi ci biir di arbitre. ma appoo fiis. ah man kon xaw ma fo man da ma jël teet. man fiis la appoo Babacar. arbitre dina ko fiis teet. ñu ngi leen di passé bi Talla taala cey Moussa Ndoye. cey Garga Mbossé. Garga am na lu mu téye ci loxo bi. waa benn laa benn benn téere la takk ko. muy lang noonu. yee eh, mbokk yi ñu sifur ci Leewtoo TV nuyu nañ leen. ana Yankoba Sané ana Khady Ndiaye Rose tuuti yaay Sarr coach si jabong Teneng maa ngi koy nuyu sama séeri ana Lebu Ndoy ak Lebu séeri ta toj na Grand Théâtre Lebu Ndoy ja la ilaha illallah yee eh, du mën a ñàkk waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy suivre Safia nuyu naa la ca France waaye Talla Ndiaye groupe Babacar fans club Babacar groupe WhatsApp ba lundi Sal Baol la ñu invité mardi l'an 2000 may nuyu fans club Babacar boobu. kañ may invité. léegi ñu invité la ñoom Grand Laye. da maa war a invité de Babacar. ñoom Cédric Marcelin Ndour. waaw da a ñoom Jige. maa ngi nuyu sama jërbaat maa saaka Pambay nuyu naa sama jërbaat. ñawkat bu mag. da baax Couture maa ngi koy waaye kenn du Cheikh borom Daaru Salaam Couture. kenn du moom. borom Daaru Salaam création Couture. maam Ngom. waaye ana Rimka Couture Touba Sandaga sama xarit boobu nuyu naa ko séeri nday Rimka Sandaga Samba Kara duñu leen mën a fàtte dañ leen di nuyu hélas bu jeen borom Senova Couture Baba Diaw la grand caméraman Baba Diaw bu Sen TV Baba Diaw bu groupe des médias Kapo moo dàq caméra ci Sénégal kenn du Baba Diaw waaye ñi may bëgg ñëpp dafa ñu ngi raam daan la bokk yee ñoom Ahmed Thiou Ramdan la ñu bokk Amady Badiane la ngeen def bi grand théâtre doy na waar dafa ñi ngi maris doomu ndoy Waly Seck bëgg naa la waaye eh, eh sama xarit ba Louis Senghor arbitre baa ngi waaj a soufflé Louis docteur Macoumba Diouf arbitre baa ngi waaj a soufflé maître Pape Sène arbitre baa ngi waaj a soufflé arbitre soufflé na garga droite eh garga go garga droite Moussa Ndoye gauche la ilaha illallah Garga ñaari pied Garga dafa daan woon bi muy mujj a bëre moog Boy Niang ca Demba Diop lu may selluwul taala wax ma ko. biñ duggee ci lamb ba léegi kenn buusewul. lamb jee neex lamb jee demee noonu Baba. lamb jee dingoot taala Ba Abdou Fall. Ba Abdou ko tëgg président des promoteurs. et eh, Moussa Ndoye koy Garga koy bëree Babacar a koy reporté Talla Ndiaye koy filmé di ko monté Serigne Ndiour nuyu naa la borom Italie waaye maam Libaas sama xarit ba Youssou Ndoye l'international du ma la fàtte ak Saliou Ciss ñooñu ay international lañ ci basket ak football nuyu naa leen du mën a fàtt duñ leen mën a fàtte su may waay lañu di samay xarit wallaay fu ngeen mën a ne nuyu naa leen soppe Babacar yi. avancé dem ci kanam bëree suul tànk yi samp jaaga Moussa Lonar Garga Lonar cey ji làmb Garga ngi ne tekk rek xalaat naa bu songoo amee wala xeex am dara xew Garga yokkaat na taxawaay ba ca kaw Garga Mbossé xanaa tey yaay wàllu parcelle waa ndax ren seen grand combat boo xoolee yëpp da ngeen koo perte garga Moussa Ndoye ndax fa nga nekkoon da nga fay continuer waaw gars yi ne delloo fa sa loxo fa nga wokk fa fa xasan Moussa Ndoye ndax da ko fay delloo wala garga da lay tere loolu léegi mu leer waaye njeexaat bilay Talla Ndiaye foofa rek doom delloo fa sob loxo Talla ma Talla xam nga njeexaatam. xam nga njeexaat. déedéet Babacar njeexaat moom xaw njeexaat bu nawet bi jeexee ba ñu bàcc gerte gi ba fat ko ñu dem ci àll bi di jeex gerte. ñaari mbër yaa ngi lewaatoo arbitre wax na ak ñoom léegi tee ngeen a bëre Moussa yaa garga laalante wu de ana li ngeen doon waxante Moussa Ndoye Garga tengee na bëre Moussa sànni na góos waaye loolu loolu cokkaas lañ ko mën a tuddee wallaay laale leen da ngeen a war a laale waaw daa war a kon moom Moussa Ndoye wala Garga départ kon na départ Moussa Ndoye départal kon nañu départ daje. dañoo a départ rek jëluñu fi. waaw moo gën de timis naa ko Garga Mbossé yaa ne woon da ngaa wane ko Moussa Ndoye day confirmer na ko wane. arbitre jox na ndax dañoo li passivité taxaw di lewaatoo te defu ngeen dara xeex ak ñoom ne jàkk di xoolante. ñoo nga ca de loolu dalul Moussa sànni na gauche sànni na gauche droite Garga arrière Garga arrière na taxawaat dal di dër Moussa daa bëgg a dem de loo ci mën a dégg ñaari mbër yu entraîné yi bëree doomu Yaraax ak Parcelles yee ñaari xale garga na say garga ku dugg ci sa biir war na koo mën a taqali dëkk jam ko ko ba mu yëg ko garga mboose arbitre ba soufflé tina ñëw jëlaat avertissement dañ koy jël jox leen ku nekk Moussa Ndoye ñaar garga mboose ñaar leen Talla Ndiaye waxal ñii ndax ñu bëree dañoo war a bëri de bëre leen Papa Ndiaye. waaw ah, war nañu bëre de. nañu bëre waat. wax ñu woon lii Babacar. waxuñu woon ni lii. waxuñu woon lii Babacar. defante dañoo a defante. ani Balla Gaye de. ay bu doon moom la yaakaar nañ lamb ji jeex na. ani Ama Baldé. bu doon moom la lamb ji jeex na. ana Modou Xarañ Lo. bu moom la lamb ji jeex. et ana ma seen. songu bëre ana Boy Niang daw na ko. Moussa Ndoye yooru na le. Moussa da ngaa yooru Moussa da yooru Garga tëru ko génne ko sol ko eh lu xew lu xew am na lu xew de mba Garga daan na ko de Garga daan na ko de Moussa Ndoye daanu na de Moussa Ndoye daanu na Talla Ndiaye Babacar yaakaar naa Moussa daanu na mbër lu xew. sant yàlla rek. maaraan daan day daan naa ko sant yàlla. lu waral jël bi.